atelier bi tey li ko sabab mooy dañ ko ñëw pour dañ ko def pour tënk liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ci li nga xamante ne ni moo euh, jóge ci bànqaas yi nga xam ni euh, moom nañu tuddee chaîne de valeur chaîne de valeur nag euh, liggéey la bu am importance boo xamante ni nii promise da ko ciy def li ko dalee ci mbay mi wala napp gi ba ci liggéey bi ba ci euh, euh, li nga lu ñu tuddee njaay mi euh, étape la yoo xamante ni yu am importance yoo xam ni mënul ñàkk ci li nga xam ni moom nañuy liggéey loo promise nag programme la boo xamante ni nii dafa li ñuy wax chaîne de valeur da ko soxal lool ndax boo jëlee ci téeméer bu nekk juróom benn fukki ci suñu ay financement moom nañ ko jagleel donc dafay am solo ñu topp ko Euh, liggéey ci liggéey boo xamante ni dina tax suñu financement yooyu du lajji mais également dinañ accompagner acteurs yi tey euh, chaîne de valeur yi nga xamante ni moom nañu ciblé mooy euh, bu ceeb bu xorom bi bisap ak élevage bi mais également li ñuy tuddee anacarde loolu nag dafa nekk yu am solo ci ci réew mi mais également liggéey bi ñuy def dafa méngoo li nga méngaloog li nga xamante ni muy euh, mbébétu président Macky Sall ci plan Sénégal émergent waaw euh, di bi bi mag mooy bi bi gën a mag mooy euh, fexe ba chaine de valeur yooyu am lu ñu tuddee structuration organisation boo xamante ni ñun déjà suñu programme dafa am direction boo xam ne dañ ko jagleel loolu donc loolu dafay wane rek importance bi ñu am euh, jagleel li nga xamante ni mooy chaîne de valeur yi donc structuration maanaam ñu am organisation bu dëgër boo xamante ne dina permettre non seulement suñu financement yooyu dinañ ko utiliser normalement mais du nekk financement yoo xam ni day lajji askan bi dina ci gis boppam entrepreneur bi nga xamante ni ci loolu lay yëngu mu gën ci gis boppam mais également réew mi gis ci boppam bu baax a baax.